partagé ñu bàyyi Ismaïla. waaw mais Aïcha. man lee ma gënal mooy bu ma ayee sama parole te toog déglu ñëpp. <laughs> non non déglu rek ñu jox ma kàddu nañu ma may. d'accord ma dégloo ñëpp aussi ma mm. wax. li ngeen bëgg lañuy def gis nga kii kii li muy wax noonu. ñàkk a xam moo tax ñu bari di taxaw di na wax naan conseil économique amul njëriñ du fi daal mais man ministère de l'élevage laa bokk. Mm-hmm. xam nga li ma la wax. secteur bu transversal la am na ay jafe-jafe ci ministère de l'environnement am na ay jafe-jafe ci ministère de l'agriculture am na ay jafe-jafe aussi ci ministère de finance ak yeneen gis nga conseil économique hmm. fa ngay amee possibilité dégg nga problème bi ñu am tey xam nga ñu ngi am ñu ngi am tey euh, Sénégal am na tey code forestier code forestier boobu boo dégloo média yi passé ñun ñu ngi ko doon jàmbat di ci kaas. Mm-hmm. xam nga li ma la wax kooku du suñu tutelle mais problème bi ñu fa am foofu nag ci la ñuy amee possibilité dem gëstu loolu au niveau de ministères de l'environnement rencontrer tous les directions rencontrer ñi ci am xam-xam xool ñi ñu ci war a xam yépp ba ñu génne problème yi nga xam ne nun noo ngi ko doon jàmbat nu ñu ko gisee nu ñu ko tabaxeetu waru ñu ko woon tabaxee noonu. Mhm. suñu ko génnee nag mu nekk ay document yoo xam ni dañu koy yónnee ministère de la l'environnement bu demee ci ministère de la l'environnement. Mhm. moom mu xool ko ak ay technicien xam nga li ma la wax. mu mhm. wax ci xalaatam. ba yi ñu ko wooke ko mu ñëw. jàkkaarloog waaye may ma rek siñ bi yow tamit siñ bi gis nga kii nag kii Aïssa kii perturbateur <laughs> su fekkee da ngeen bëgg lu baax ci émission bi nag de grâce. bu leen di ko woo kii émission kii la day laaj. waaw mais buy laaj aussi tamit may nit ñi comme ñun ni ñu koy may. mais am na aussi boo waxee relancé la moom dafay wax dara mu wóor ma ne du noonu mun naa ko dak mun naa ko. couper léegi bàyyi la nga terminer rapidement